wax na ci yow lu bari ma ne ko caan moo mënti def lay diggee dinañ ko jàppale ndax si te Ousmane Ngom bee moo fi dellu si ku jàppoon si te Ousmane Ngom bële jàpp si te Ousmane Ngom tey bii ñun loolu la ñu xam tàllal nañ la sa loxo sunu loxo ñun ubbil nañ la sunu bunt fii loo fi amul rek ci yow la soo jógee ñu jóg soo toogee ñu toog. Madame Kassé merci beaucoup Pape Seck di ko jaajëfal bu baax a al si Sy merci beaucoup Birane sa Ndiaye plus communément appelé Mboré loolu turu football la mais maa la koy tooñee ñu tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax le grand Birane Yapsa Ndiaye di ko jaajëfal. ñu ngi ziar waa Mbour 4 dellu aussi di ziar waa Mbour 3 di leen jaajëfal ci kóllëre gi nu àndee d' abord ñu ngi la ci jàppale bi muy jàppale Thiès ak taxawaay bi nga xam ne ni mu ngi koy taxawee fii ci Thiès bu nu tuddee jàppale bi muy jàppale waa Thiès tudd taxawaay bi muy taxaw ci waa Thiès kii toog di suñu ñu koy wax Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop DG ANAM loolu war na ko mën a seede war nañu mën a seede loolu est-ce amul ñu ko gën tudd muy Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop est amul Thiès ñu ko ëpp njàng muy Adja Ndeye Ndiaye Diop est-ce que amul Thiès ñi nga xam ne ni li ñu servi gouvernement servi wu ko muy daam bi toog muy Adja Ndeye Ndiaye Diop. asalaamaaleykum euh, waa Mbour 3 asalaamaaleykum yéen ñu fi teewul ñëpp ñoom la ñuy nuyu ku ne si turam ak santam comme on a tout l'habitude de le faire chaque jour euh, puisque tey ñun dañoo am benn contenté ak benn fierté bi nga xam ne pour exprimer ko dafay xaw a métti lool parce que la première fois une dame ñëw seet su ñëw.

di wax doomi liggéey di wax doomu kër mi di wax nit ku baax di wax borom juddu rëy seen mën tax ko wax Ndiaye Diatta Ndiaye kenn du yéen Ndiaye Diatta Ndiaye kenn du yéen yéen lu mu xam ci lu baax ci yéen di leen ko wax ndax yéen a ñu ko ji yéen a ko toggee ak ñun yéen a ko taxawee ak ñun yàlla yàlla guddal seen fan Ndiaye Diatta Ndiaye yéen mën noo bañ wax ci yéen. Je parle au nom de tous tous les jeunes ici présents aujourd'hui ceux qui ne sont ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui ne sont pas là. Euh, nous ne sommes pas sans savoir que vous êtes toujours derrière le président Macky Sall et nous vous avions toujours suivi. Et c'est aujourd'hui que nous avons eu cette occasion de vous voir parmi nous. Loin d'être dans le discours de vous étaler tous nos problèmes, aujourd'hui nous vous disons que nous avions programmé un ensemble d'activités et nous comptons euh, sur votre parfaite collaboration à nous soutenir parce que nous ferons de vous notre marraine. Ah. Nous tous ici présents, nous sommes témoins de votre imbrication et de votre implication dans l'ensemble des activités du président Macky Sall. Euh, nous sommes jeunes aujourd'hui et nous sommes appelés à diriger ce pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes toutes et tous derrière vous pour vous épauler et pour vous appuyer. Nous sommes conscients aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de ces potentats qui prétendent s'asseoir au lieu de trône on n'a plus besoin de ces hommes-là qui s'accaparent de tout bien et de tout service. Nous avons besoin de cette dame qui, mue par des valeurs, lutte farouchement contre ce sempiternel téléfinancement et téléalimentation pour parler comme Axel Gabo à la page 23 de son immense œuvre ici. L'Afrique refusait le développement. C'est de cela dont l'Afrique a besoin. C'est de cela dont le Sénégal a besoin. C'est de cette dame dont la population de monde a besoin. Je vous remercie projet bu mu taxawal foofu noonu euh, bâtiment yoo xam ne sa transformation tri euh, kii euh, lu ñuy ci fa dafa école des pêches il que temps bu mais presque lu mu def directeur deux ans ou trois ans def nañ ko mais presque six mois la def école ah, te nu mu mu ngi nii moo tax ma ne leen c'est pas du femme du femme battante rek mais jigéen ju mën góor la jigéen ju mën macha allah waaw maa ngi maa remercier ñëpp di suñu tante yu baax ji madame euh, madame Niang yow vraiment ku nekk euh, jàppale leen ko vraiment euh, femme bu am détermination la ku bëgg lu muy def la te amul caaxaan amul caaxaan de lu mu wax moom da koy def waaw xamewu xam xamewu ma mais xam na ko baax nous sommes du même ministère ministère de la pêche depuis que mu nekkee secrétaire général maa ngi chef de poste parti Fatick la Ligue. liggéeyee te xam naa vraiment ku jar a jàppale la te yàlla na ko yàlla lafal cat. dama wax ni say compétences, président daf koo xam ba jël ko jox la lim la jox il a mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut danoo wax ni day ces compétences compétence moo la may li nga am danoo wax ni nit ki luñ koy fonke mooy cadeau. liñ lay fonke mooy say kàddu te ku fonk say kàddu nga ku fonk sa nit ñi nga ànd la ku fonk doomu aadama ku fonk juddu doomu aadama loolu nag ku am juddu moo ko mën ku amul juddu doo ko mën. nee na mi ngi nuyu en passage monsieur Mbengue muy nit ku baax. Mbengue Mor. di la wax ni ndey dikkee kii nga xam tey de moom la ñu seet si ñun ñeeñoo yi di communicateurs yi dañuy jàng doomu adama kii ñu seet si tey tey laa ko mës a gis. tay la ma yàlla mën a wëloon ak mom waye xamna ni ko am détermination la nek ta xamna ni mbolo mi mu jiite bu né len nan len dem dina ànd ak ñom ñu dem ndax mom mi ni mu gis xamna ni képp ku mu ni jogol diga nga ku mu ni togal nga tok ku mu ni taxawal nga taxaw ndax nit nak nit ci ay qualité rek lañ koy nawé mais bima xolé ay qualité am xool taxawaayam xam ni ku am cadre la ku am pas-pas la ku am yéné la ci askan waye nak ci nga àndal. di déedéet yalla boole na ak moom ngeen war a liggéey damay wax ni yalla nañ fi jëwaat Mbour 2 bu élection yi passé président de la République jënd ab li avec une majorité éclatante loolu la ñuy ñaan ci yàlla.